alors ñu yaa ngi koy wax sànq euh, jàpp nga ne euh, war nañu xoolaat booy wax ne nañu xoolaat la loi d'amnistie euh, da nga koy wax en passant wala <laughs> loo loo loo loo gëm la. <laughs> non mais man dama dama ni xam nga ñu ne lépp lu fi ma ànd nañ fi ay décret Macky Sall wala décret président et puis loolu itam mesure su wax. ñu ne décret euh, bu nommer des membre de le président de la cour suprême après après avis du conseil supérieur de la magistrature le président a pris la responsabilité de l'abroger ma ne bu ñuy abroger décret yëpp nañu abroger aussi loi d'amnistie bi leen bi leen libéré ça aussi moi c'est logique pour logique si les gens doivent être logiques mais bu état bu nekkee continuité da nga koy jëlee fi nga ko commencé président la république am na envie changer président de cour suprême dafa am ay text yu ko organiser day convoqué waat beneen conseil supérieur la magistrature conseil supérieur de la magistrature ne ko décret bu président bi joloon nangu nañ ko ñu abrogé ko bu boobaa boo ko defee dafa méngoog yoon parce que dafa tubaab dafa am juriste dañuy wax parallélisme des formes mais boo ko respecté wul nga ne lii danaa def fii ah, fële dinaa fi def donc dafa am décret yu am ndey ak ak ay yu am ndey ak décret ak loi yu amul ndey mais tamit euh, bon. je maintenant maintenant sur, sur ma position personnelle. waaw je l'avais développé. je ne la je la ma position. je ne reviens pas sur ce débat-là mais ah. président de la République tamit bu demee ba mu dese ko quatre jours pour mu dem euh, est-ce que par décence républicaine warul éviter nommer un magistrat d'une juridiction capitale. Ah, euh, pour le président, fonctionnement de la de la justice président bu mu dem. def na décret bu delloowaat Pastef pourquoi duñ ko wax. mooy bi mu abrogé décret. bi bi dissoudre Pastef bu jëlaat décret bu abrogé loolu. te lu tax waxuñ foofu élégance républicaine tontu ma. laaj leen ko ñoom. ah de yow yaa ma laaj ma laaj loolu ma laaj leen loolu. mais dafa na rafet état continuité la il faut qu'on reste élégant ñoom ñoo fi waxante lu rafet ku nekk saluer la posture du Sénégal wax ci li nga xam ne ñu témoigné lañ ko ñoom tamit nañ ko respecté élégance dafa am dans la pratique loo bëgg dindi ci état nga nekk chef d'état am nga moyen pour dindi ko. am nga moyen pour dindi ko bu fekkee tey ñi la wër bu fekkee ne xam nañu état bu baax am nga moyen pour dindi ko te mën nga ko ci dindi ak ñu mu rafetal parce que pouvoir bi ñun suñu pouvoir jeex na mais pouvoir bi tamit dana mës a jeex te bu fekkee noonu la ñuy continuer éternellement on n'ira nulle part